ko déggandoo nee na loolu leer na nañ nee na man nag sajumaa wax sax ndax xam sama bopp nee daal ci ñaari anam rek laa koy tënk yëg naa yëg gi nga xam ne yëg gi nee na man day alhamdulilahi rabbil alamin yëg naa yëg boo xamante ni yëg naa ne yëg ngeen yëg ngeen ma ko waaye nag alhamdulilahi waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin ab soññee rek la ci nee na ab soññee rek la ci man yëg naa ni nee na yëg naa ni lu ngeen ma gën a yëg lu ngeen ma gën a yëg ma gën a yëg sama doyadi ma ma gën a yëg sama doyadi sama diggante ak sama borom oh, sopp nee di gën sama sopp Serigne Touba. nee ñaar yooyu laa jëlee ci. seen yéene seen yitte jii ngeen jëlee ci ma. nee kon noonu rek la demee de. nekk ci barab. nee na nekk ci barab. ñu di ñu di ma doonal dara. te sama kilifa ne kilifa ne fa. bokk na yi ma gën a nee na bokk na ci yi ma gën a métti. waaye nag doonuma dara ci sama bopp. waaye nag dara ci sama bopp. waaye foofu laa nekk. waaye man foofu laa nekk de. nee dama leen koy seeral yéen ñëpp. nee ba di ko seeral yi suñu borom. nee Serigne Mbacke wax na lépp. nee na baat bii nag mu a wax nee Serigne Touba kenn la de. wax naa ko te du yàq dara. nee wax naa ko te du yàq dara. waaye fa ko borom jaarale ba nee fa ko borom jaarale ba ci moom. nee jaarale wu fa nee loolu tax muy kenn. waaye ngeen gën a xam ni. lu ngeen ma gën a yëg rek. lu ngeen ma gën a yëg rek. ma gën a yëg sama torte. nee ma gën a yëg. ak sama doyati. sama diggante ak sama borom. sama diggante ak sama borom. di gën a yëg it. nee di gën a yëg it. bëgg koo bëgg Serigne Touba. bëgg gi ma bëgg nag Serigne Touba. ba keroog bis penc ma. loolu laay soññi sama bopp. nee loolu laay soññi sama bopp. nee loolu laay soññee yéen ñëpp.